Bakna aram fal, bay moodu fal sa aram Ya, sooda kan la ni wee sa yaay sooda kan sa yaay caana kana yaayam yaay situ elimaan bubakar kan ca ya yaay satu Ibrahim fal. làmp ngëneel bi yàlla taal maa la wóolu aram faal niki li muy gëne niki ci deret lay doon sadaka nay sa yaay caane kana yaayam baay mudu faal lani wowe sa faal mi yàlla faale jëgg maale fatim faal maa la wóolu joyeux anniversaire Aram Fall